waye ki da ngay tek mémoire bi wowi ji sey jinné ñu daw dawa ñew dor mu daanu sino rek da ngay yeggu suuf baa da ngay tettelu xet gu ne duggu lamin li lan la ah yow be doo wax ak mom ay ah, ca dugalal ndoxum kesse du fa fu dara nekkul dara du fa duggu yow lamin njaay mëno ma may jam lamin sonal na ma lamin dugalal publicité duma machine ñii nga may assoné nii antenne bi du toj ma war a teg kenn ku nekk wax ko doléance am dafa metti lii lan la Lamine Ndiaye lii du animation kuy dugg nga koy may délicace de lii mémoire la laaj ple buy tegu animation buy may délicace rek ngay téye am ku dugg nga ne ko koo koy jox wala koo koy may mu ne la diw waaye kii da ngay teg mémoire bi